dañuy sant yàlla nag parce que Serigne Mountakha mooy Serigne Touba ñun Touba la ñu am depuis keroo àjjuma euh, laa gisante xalif bi waxtaan ak moom avant may wax li nga xam mooy sama gis-gis ci jafe-jafe yi fa amoon mu wax ma ni bëggi ku ko waxee ak ku ko doxalee si biir dëkk bi yaakaar naa bi ñu si jógee samedi dimanche ci la jël décision bi nga xam moom la jël. ñun nag en tant que taalibe du ñu man lu dul rafetlu décision bi parce que ñun comme ñun Touba la ñu am te Touba moo ñu gën a politique Touba moo ñu gën suñu ndombee tànk yi am ni ak yi war a am ëllëg te ñëwagul sëñ Touba moo ñu gënal suñu bopp ndax dañoo jaayante ak moom kooku lépp loo xam jël na ko muy comme décision muy moo xamante ni daf la fooraawul wala mu ñàkk laa fooraawul doo man lu dul ànd si loolu moo tax bi nga xamante ni décision bi jóg na dama wax ak ñi nga xamante ni ñoom laa war a waxal concernant waa parti bi ma bokk ak waa coalition bi ni ñu ñi dëkk Touba nga xam ne ay leader lan ñu war a njëkk sàmm dëkk bi ndigalu sëriñ bi ñu ñoo ko njëkk appliqué ba tax na joxe naa ndigal képp ku bokk ci mouvement nekkal fa askan wi wala beneen parti wax dañoo nekkoon coalition ñu respecte décision sëriñ bi te wormaal Touba parce que Touba la ñu am loolu nag dafa am lu ko waral parce que ku ne xam na ne élection législative bi passé waa Benno Bokk Yaakaar dañoo dem ba kër sëriñ Touba gi nekk Daaru Manaan di fa def ay manifestation politique dafa maanaam meeting ci biir kër sëriñ Touba gi nga xamante ni bâtiment bi sëriñ Sidi Dieng bu sëñ ñaar jenn moo ko defaroon mu naqari murid yëpp naqari sëriñ bi mais jamono yooyu bu sëriñ bi génn woon wax dañ naan ñoom waa benn bokk yaakaar sëriñ bee tax ñu ñàkk ku ne xam ne sëriñ bi mat gi mat xam lépp moo tax mu ne woon cell mais fan yi si ginnaaw bu waa Pastef defee ay communiqué ci ñenn ñi nga xam te nekkoon ay dip nekk nañ ay député ci réseaux sociaux yi ak ay wax ni nañu tase ci rond-point ancien garage Dakar bi pour taal Euh, ay pono ak euh, dëkk bi nit ñi déggal leen ci loolu dama jàpp ñooñu dañoo di dañoo dañoo gëmul sëriñ Touba parce que Touba min jëpp Senghor ba léegi mi ngi am te mosul am lu mel nii bu waa Pastef defee noonu taal si dëkk bi dindi wormaay Serigne Touba bi nga xam amoon na ko ak ñag bi nga xam Serigne bi ñagoon na ko dëkk bi ñu dindi ñag boobu noonu ba taal fa ay kii yoo xam ay bi ñoom ñoo ko moom Serigne bi nag ci la jël décision ni comme que demee na noonu te Touba moom moo ko moom. mu aay lépp loo xam mooy activité politique ba pare aay waaye li nga xam mooy bureau de vote yi ñu génn ko dëkk ba ndax bureau de vote yooyu noonu 606 bureau de vote la parce que 602 la woon plus ak dëkk 4 bureau de vote yi muy 606 bureau de vote 400000 électeurs yoo xamante ni mi ngi Touba léegi bu sëriñ bi nee bureau de vote yi na leen génn dëkk bi benn fan la leen di yóbbu ñaar est-ce que ñoom daan wote wala duñ wote ñett il faut que ñu am décret spécial pour que révision code électoral ñeent mooy il faut que tamit ñu sensé carte électeur bi carte électorale bi loolu nag wax dëgg yàlla képp ko xam ne da ngay wax sa diggante yàlla mooy xaju fi te sëriñ Touba du wax di deltu ginnaaw li Serigne Touba wax moom la ñuy appliqué mu neex ak mu naqari moom la ñuy appliqué parce que man mi nga xamante sama yaakaar ñi ma war a wotee lépp Touba la ndëkk bu Serigne bi jëlee décision boobu lu metti metti si man damay d'accord nangu ndigal li Serigne joxe. kon askamaak ñi nga xamante ne dëkkuñu si biir dëkk ba ba pare ñëw dindi wormaay Touba nga xamante ne décision bi ñoom bokk na si ñu ko sooke ba loolu am muy Macky sàll ak osmaan sonk ñoom ñaar ñoo sooke mbir mi kii ay nitam ñoo dem mitin kii ay nitam moo ñëw taal ñaar yi nag comme dañoo fatt askan wi jël sénégale yi ñoom ñaar ñëpp dañ leen war a dégaa si benn yoon ñu bàyyi li nga xamante ni mooy sénégalais ñu dem wote 2024 ku gañe gañe parce que kenn ku nekk loi tënk na la kii article 27 moo ko tënk kii article 57 ak article 29 et 30 code électoral moo ko tënk ndax nag li am si dëkk bi waruñu ko bàyyi aussi muy continuer nekk patriote du tax ngay taal ay université nekk patriote du tax ngay lakk ay concile ak di xotti ay kayit man mi waxee sama doom mi ngi a ñëw tabaski mënul ñëw parce que passeport dafa jeex samay taalibe ñu ngi war a ñëw parce que mun ñoo ñëw parce que seen kayit jeex na amuñu fu ñu déposé passeport ba pare loolu jëf jooju ñu def dafa recruter si li nga xam mooy élection yi au niveau de diaspora ku ne xam diaspora ñoo fa doon am diaspora yi loolu kan lay arrange ku dul Macky Sall ak ñi fa que nit ñi ànd seen xel xam ni yàq gi ñuy yàq jaaruwul li ñuy def nii teguñu ko fenn parce que Ablaye Wade moom lañ fi njëkk a tëj doomam tëj ko fi moom mais taxul mu mas a woote mukk ne kaay leen taal dëkk bi kon maa ngi woo ñëpp ñoo xamante ne dañoo nekk ci acteur politique yi nekk ci milieu boo xam ne dañoo sonal askan wi nañu bàyyi nit ñi dem fi mu toll may wax ak yow añ màkk gaa ngi nii kenn yëgul ne sax añ am na tabaski gaa ngi jub ci kenn xamul ni bis bii la ñuy ki walla nangam kenn ñëmutu indi ay xar ndax ragal économique bi daanu mais kan moo ñu ko yóbbu ko du ñoom ñaar mais moomuñu sénégalais yi kon ñun en tant que kilifa diine en tant que maanaam député en tant que chef de l'opposition de Mbacké ñun lu sëriñ bi wax moom la ñu wax lu sëriñ bi waxul waxuñu ko accepté nañ ko cent et deux cent pour cent te man fi man laa koy tàmbalee du ma ko def te samay nit duñ ko def te ku ko def danañ jàmmaloo ak Baay Faal yi